El Hadj Ousseynou Ndiaye dal leen jàmm ci xibaar yéenekaay yi nañu ànd ubbeendoo yër yéenekaay yi nga xam ne nag moom la ñu xëyandoo l'Observateur Sud Quotidien ak yeneen i yi daanaka ñoom la xëy fësal bokk na ci visite bi nga xam ne maître Abdoulaye Wade mi ngi ko doon amal ci dëkk bu sell bi di Touba Sud Quotidien di xamal ne démb kay daanaka lu mel ni màggal ñoo nekkoon ci dëkk bu sell bi di Touba source a ci xalima moom bay Cissé dañu xamal ne mbir yi kay maa sànni mbàtt mu tàgg ñuy xaar ki nga xam ne nag moo di Pape di soppi moom mi ñu doon xaar nag gannaaw bi nga xam ne nag moo di résidence Khadim di koy dalal ci sante ngi wër fu mu nekk naan Abdoulaye Wade moo ma ko mayoon loolee du dëgg de du dëgg de du samay kàddu yéenekaay bi di Les Échos moo ko fësal ñu direct info moom nag la mu gis moo di démb kay Abdoulaye Wade dafa def li ñuy wax volte face maanaam kàddu yi nga xam ne yëkk yëkkati woon na ko ba muy doog a wàcc ci ndakaaru di xam ne jamono ji élection yi daanaka ay élection buggul mu am ci réewum Sénégal nañu taal carte électeurs yi jaxase ñi nga xam ne moo di matériel électoral bi kàddum yooyu nag démb ba mu ñëwee ci sëriñ nee na moom daal jàmm la woote ci quotidien di ñu xamal ne élection yooyu nga xam ne moom la ñu dënmal ki nga xam ne nag moo di Xalifa Babacar Sall waaw xaaf mi nga xam ne nag moo jiitoon maire bu Dakar te jamono ji nag muy yewoo ca prison bu rëbës na Xalifa Sall Idrissa Seck lay jàppale moom daamal Kajoor ngir gannaaw cëb tournée boo xam ne ca la nekkoon mi nga xam ne nag Idrissa Seck am na mbégte lool ci jàpp gi nga xam ne Khalifa Babacar Sall ma ngi koy jàppale ci Vox Populi di ñu xamal ne kay jamono ji kay kii def bës mooy Idrissa Seck ndaamal Kajoor jamono ji daanaka coalition bu am doole maanaam ay nit ñoo bàyyi ko fu nekk ngir fekk si ki nga xam ne nag moo di Idrissa Seck ngir jàppale ko ci jongante njiitu réew yi nga xam ne moom la ñu dënmal critique yéen kaay di ñu xamal ne Idi kay daa xat jamono ji ngay ndax li nga xam ne ñoo bàbbeeku ngir fekk si ko bari na lool ñu bari nag démb ñu ngi doon xaar juróomi candidat yi nga xam ne ñoo am jongante palu njiitu réew yi nga xam ne nag moom la ñu dënmal bu dee candidat Benno Bokk Yaakaar bi muy Macky Sall démb nag ko fi nga xam ne nag moo di Tambacounda waaw Tambacounda googee nag bëri loo xam ne dinañu ko fa def rawati nag ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllu dem béeg dikk bi lépp loo xam ne tamit jëm na ci chemin de fer bi loolee danañu ko a dooleel ci di a Sall borom piir yéenekaay bi di ñu xamal ne moom nag ma nga nekkoon fa nga xam ne nag moo di Nioro Idrissa Seck moom ma nga nekkoon ca Koungheul Madické demoon ca Vélingara Ousmane Sonko demoon fi nga xam ne nag moo di luga foofee nag ca la yëkkatee ay kàddu moom Sonko Sonko bi di xamal ne bépp fonctionnaire daal bu nga xam ne gis ngeen ko mu yor ay milliards kookee mënees na ko jàpp ab sàcc bu réy lay léegi leer na mu combat bi nga xam ne moo war a dox ci diggante Eumeu Sène ak Modou Lo combat diggante Eumeu Sène ak Modou Lo taxaw na